asalaamaaleykum mbokk yi jàngoro ji xew ci jamono coronavirus ñi naan Covid 19 lu am la yéen ñi nga xam ne yéen nekk Sénégal wala Gambie wala ngeen di doomi Sénégal ak Gambie yu nekk ci adduna bi wala sax ngeen dégg wolof maa ngi leen di nuyu di leen ñaax di leen wax ne jàngoro ji di coronavirus lu am la dégg ngeen ko ci Chine dégg ngeen ko ci Europe dégg ngeen ko France Italie Espagne. waaye dëgg dëgg yàlla am na senegal dëgg dëgg yàlla am na Gambie te nag li koy joxe moom bokk na ca jonjoo jaxasoo ak càggante ci wàllu set moo tax maa ngi soñ saa bopp di leen soññ ci ñu jëfee li nga xam ne moom la docteur yi digle santaane ko docteur yi ak ñii liggéey ci wàllum paj li nga xam ne moo war a nekk suñu wax suñu taxawaay tey mooy li arab yi wax sami'na wa ata'na dégg nañu dinañ jëfee